Ils ont gagné 10 communes sur 10. 12 ah, communes sur 12. Actuellement, le problème, c'est dans la ville, où les trois communes, depuis 2012, les gens n'arrivent pas à les gagner. On ne peut pas continuer comme ça. Pour les prochaines élections, il faut mettre de l'ordre, mettre une équipe capable de gagner ces communes-là. donc euh, vraiment il est gërëm ça leen sax ni le Mamadou wax dañuy problème département Yes. Thiès luñ ko tëralee ci wàllum politique ñaari instance lañ fi teg ñaari kuréel kuréelu départemental Augustin Tine mu koy gérer ak kuréelu fii ci jàlbeen gi am woon benn jafe-jafe parce que Augustin euh, euh, euh, Thierno Alassane Sall mu fi nekkoon nit moo doon coordonné ville bi waaye xam ngeen ni depuis le trois mai nekkatu fi léegi depuis loolu nag désordre moo fi am lambikoon ku sa morom daal léegi loolu am na ñi nga xamante ni dañ ciy tirer profit ndaxte position yi ñu nekk moo leen ko may Abdou Mbow la député la membre directoire national Demba Diouf la directeur de cabinet ministre force armée la membre directoire national Seydou bu Njëgeen euh, PCA la membre directoire national te juróomi membre ñoo fi nekkoon ci département kenn ki bàyyi na keneen ki ministre force armée mu ngi def liggéeyam ci département mais ñett ñu fi nekk mais ñoom boobaak léegi pour ñu fexe ba gañe benn Sandaga ba gañe benn ko y a problème te nag bu ñu bëggee ñun

le temps de l'ATI Burkina, le président a de 274 milliards. 7 à 8 fois plus que nous, Idrissa Dougal. Idrissa, 40 milliards de Qui unifie 7 fois plus. Idrissa, 2004, le revenu de Dougal. Watiès, Biko Wadé, il est pour tout faire de la racine. Il a 274 milliards. Mouniou, ci benn espace boo xam ne plus de 2000 personnes les gens ne sont même pas capables de les 500 personnes Il y' a problème y' a problème donc bu fekkee jul vraiment dañoo jub pour liggéeyal président il faudrait donc mettre une équipe nga xamante ni capable de jàppale ko ba mu élection yi di ñëw mu am yaakaar dañuy bind Thiès te loolu mën a nekk la moo ñu dañoo ni il est temps qu'on arrête ce cinéma là jaaxaan bi gars yi def sama copain Abdou Mbow nga xam partout. bëgg nekk fépp Abdou bëgg nekk fépp loolu burul nekk il faut qu'il arrête ça mënoo nekk mandataire porte-parole coordonnateur président de groupe parlementaire au niveau du conseil départemental bëgg nekk distributeur de carte manifestation soo ko amee ngaa bëgg a joxe passe carte mais loolu nekk c'est moom dafa mënul nekk donc il faut que loolu aussi gars yi nangu loolu dem mujj mënu nekk directeur de cabinet ministre bi chaque jour saa yi yeewu suba ngoon gis ngeen ko ci manifestation bi ay a banderole la indi ak ay photo ministre ba ko joxoon instruction publique ko Dakar liquide donc yooyu lañ ne yooyu ça suffit yooyu ça suffit il faut dégg nañ ko mettre de l'ordre ba yooyu mbuus ku nekk xam sa bopp parce que giraar kenn nenn kenn ñun ñi ba ñuy ñëw pour jàpp ci dañoo bëggoon liggéey bu baax mais fekkee dañuy bëgg a xatal ku nekk day dem ci lu mu nekkoon loolu laa amoon ci ñoom ànd ak moom mu metti loolu ñu gëm ko ci ay principe am ñu doon doxee di ay droit am ñu ànd ci ak moom mu metti woon trop ba yàlla dogal tey ñu xeex ba liñ fi naqari woon yàlla jëlee ko fi ci biir loolu ba léegi mësuñ ñu gis nag ñu taxaw ci presse wax waaye nag xol bu feesee dana dana dana tuuru te dañoo dem ba sës mënatuñu noppi di wax président ne ko li nga xam ni xew na Thiès ñun dañ ci am gàcce gàcce gi nag mooy dafa am ñoo xam ne dañ koo jiite ñu jël lépp teg ko seen loxo lu mel ni Augustin Tine Abdou Mbow Demba Diouf nee nañu xaritu président la ñu kenn mënul leen dara lu leen neex def président ñun gëmuñu leen yow lañuy wax waxal yow lañu gëm te itam ñu ne dañuy noppi actuellement fii ñu toll nii lii ruslu na te suñu bakkan tamit jaral nañu ñu wax la ba nga xamante ni exemple li ñu metti yëpp da nga ko xam yàlla dogal na nag waxuñu la yow yaa gisal sa bopp manifestation bi am sabotage la te ñoo ko def affaire u Cissé Lô président bu doon tey yow xam naa ne yaakaaru leen ndax ñoom dafa am lu la toppee te li la toppee jekk nañ ci dégg naa sax ci ñoom kenn ku ne tey euh, bu président amee benn mandat man jekk na kon ñooñu duñu ay góor président keroog boo xoolee manifestation bi nu mu mel ci ay nit ñoom ñoo ko saboté parce que responsable yi am na ñoo xam ni dañoo ñëw ci bunt bi ñu bloqué leen bañ leen jox seen i carte te loolu ruslu na te président li gën a doy mooy man li tax mu ruus mooy ñoom waruñu taxaw sax kanam di ndamu parce que mësuñu la indil lu mel ni 12 pour cent sax mu mësuñu la ko defal te ñoo ëpp làmmiñ ci sa staff. ci ñi nga xamante ni exemple tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne actuellement dañoo bokk ci directoire président yow la Sénégalais yi wóolu teg la fii ñun ñi nga xam ne ñoo bokk APR ñun waxuñu ak ñoom parce que ñoom amuñu dañoo mel dañuy xeex ak ñun ci seen pouvoir mais ñun yow la ñuy waxal. ñun tey boo ñu laajoon tey bu doon tey laaj na suñu ba keroog bu doon accueillir président de la République yéen ñëpp yéen a ngi fa woon ñun ñëpp gàcce lañ fa jëlee président sax gisal na boppam nii la ñu prévoir woon pour nit ñi nekk fa muy lu ndaw ñu defoon ko espace pour nit ñi dugg fa amul woon benn nit loolu nag gàcce la pour Thiès gàcce la pour tous les responsables mais ñun nag liñ ci bëgg a wax mooy mettit lañ wax loolu li ko waral nag mooy parti bi dañ ko accaparé Augustin Tine Abdou mbaw ñoo accaparé parti bi def lu leen neex so leen neexé ñu promouvoir la utal la ay avantages so leen neexu do am dara wala ñu tok fële dem ci président yàq fa sa def loolu mooy mbir mi responsable yi tok kenn amul won carte ki nek sama wet maa ko utal carte bu mu dugg il a fallu mo wo ñeneen ñu bokul sax ties ñu ngi ko ñu ay carte ñu dugg lolu c'est pas normal ñun nak ñii ñu ne ñii ñuy wax ay responsable amul benn liggéey ci parti bi bu ñu liggéey ëpp ñu def que ça soit Augustin Tine Abdou Mbow wala keneen amul kenn je les défie amul kenn ku ëpp lu ma liggéey ci parti bi waaw nan lañ mën a nekk depuis fukki ak